asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taal bi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di bisu korite di bisu mag bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifatil aam li tariqatina al muridiya al sayx muhammad al muntaqa xafidahu llahu al qaadiru al muqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa satar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 mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal qabulan xasanan ci mbooleem yëngu yi di leen dénkit tey dénk boppam nu gën a góorlu ci li taxoon yàlla bind nu andi nu fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem loolu kat la sëriñ Touba bëgg ci nun te moom la nu sant ijmaalan wa tafsiila ndax mooy sababu ak mucc ëllëg te moom la bëggal kon nan ci gën a góorgóorlu te yar ci njaboot bi di leen ñu gën doy de ko sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla gannaaw jaamu yàlla lañu sëriñ bi sant bu di jaamu yàlla day mel ne noo ngi koy liggéeyal gannaaw itam lu mu liggéey loolu lu ne liggéey bu yàlla gërëm lay doon ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ko xam kon liggéeyal ko jaamu yàlla lay doon yàlla nañu ko yàgga liggéeyal rek lay ñaan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 lu mu nekk mu rafet lu mu génn mu ñaaw ba ci xam-xam fa kasratul ilmi bi gayri adabi nan maa si xam ne àddina dëkkuwaay jaarukaay rekk la di tool yu ñuy liggéey rek kon du kërug fo du kërug noppul nan teg kanam waxe suñu borom ji te mooy وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون gannaaw bu yàlla mayee doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf bu baax ak ak kàttanu tànn li ci neex mu def dana yërante bi neel nit def leen lu leen soob lu ci waaye tànn def ko moo xam waaye ak lu man di xew yaa daa nga gis seeni i jëf daa iman te yonente bi ak jullit yi nekkul ay naafeq danañ ko gis ëllëg te des na leen delloo ci ki nga xam ne ni mooy xam lu teew ak lu teewut mu xibaar leen mbooleem li ngeen doon def kenn ko ne mu fay ko fay bu xeetu jëfam nu war a xam ne kon jenn jëf du neen fedd dana ko faneen sax wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def dara lu toll ne la la gën a tuut ci liy tuut ci lu baax dana ko ku def lu tolloon ci saan bi itam dana ko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 ak jëflante yi ak waxante ak col gi ak melo yi kenn ku ne dëggal ci boppam ak nekkam mu'min muslim muhsin mi ngi ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal ak jaamu yàlla guñ nangu te teew ko diwén yu bari ci tal ak man ci biir réew mu am jàmm am dal tey jëm kanam ci gépp am di fàttali ñépp nag juróom-benn fan yi bëgg ku leen woor ci weer wii ndax ku ko def gannaaw bu mu waree weeru koor dana am yoolu ku wooroon at ñëpp man saama ramadaana summa atbaahu sittan min shawalin kaana ka siyaami ku ko dëkkee def mel ne ku dëkkee woor diirub dundam maa ngi baalu àq ñëpp àq bi feeñ ak bi nëbb yal na mu yàlla boole baal innahu taala mawlaaya wa mawlaakum fa niamal mawla wa niamal nasir wa huwa qaribun wa samihun wa basir wa ala kulli cheyin qadir wa bil ijabati jadir déynati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh